te itam muy lu jara leral ndax itam ciow la ngi bëgg a ci monde bi yaakaar naa ne ñàkk xam moo ko waral eh, li ñuy fatia, nag mooy fatia fatia nag hmm. lu am solo la lu nit ñi war a gën a mën a xool ràññee ko xam ko moom mooy lan eh, fatia rek dafa doyoon sëkk sëkk sëkk ci lépp hmm. ndax fatia mooy bismillahi rahmaani rahim ba ci alhamdulilah rabil alamina ila axiril fatiha nak mom lañuy wax safol masani xam nga yalla daf ci baamu juróom-ñaari aayam yoy daf ko baamu ay baamu ci bir motax gor góor gi fatiha amul lu mënul ci aduna ndax bam ne bismillahi daf ne alhamdulillahi rabbil alamin da dina rahmanir rahim bon xam nga waxan na baamuwaat na fofu rahmanir rahim jooju muni maliki yawmi dini iyyaka iyaaka wa iyyaka xam nga baamu waat na ko ihdina siratal mustaqim mu ne sirata la si yéen anhamta alayhim mu ne xayril mahro bi alayhim loolu la wax sapool masani kon juróom-ñaar yi ñu ñaareel bon fatiya mooy li nga xam ne balaa nit a wax dara dina ne bisimillahi rahmaani rahim yi ci ci ay njariñ yépp du fi xaj pour ñu di wax waaye ñu junj rek ne sapool masani mu ngi foofu mooy yàlla suñ borom tabaraka taala Euh, juróom-ñaari aayam yooyu daf ci baamuwaat bisimillahi rahmaani rahim mu ne alhamdulilahi rabil alamin daal na rahmaani rahim maliki yawmi diini iyaaka nahbudu mu ne fale wa iyaaka ihdina siraatal mustaqima mu daal ne siraata la siina anamta alayhim mu ne xayril maxdubi alayhim bon loolu mooy sapol masaan yi euh, ñu fas yéene nag jàng ci téere bi commencé ko ci aousu billahi min a seytaani rajim loolu lu muy firi ndax nit balaa moo dugg ci dara ci niñ ko xamee ñun jullit yi da ngay muslu ci seetaane ndax seetaane dafa nekk koo xam ne ku naqadite la kon nag auzu billaahi mina seetaane rajiim bari nañu koy dégg waaye ñu xam wax bi lu muy und auzu danaa muslu mina seetaane ci seetaane rajiim loolu mooy maa ngi laqatu ci wàllu yàlla mu dox ci sama digganteeg seytaane mii nga xam ne dañ koo dàq génne ko ci yërmande yàlla bañ nag mu teew ci man di ma yàqal ci li ma sama borom digal walla mu di ma xeex ci sama diina di ma jéem a jëme ci loo xam ne dañ ma ko tere ndax xam naa ne seytaane moom kenn mënu koo fekk lu dul suñ borom tabaraka wa taala loolu moo tax imam Saafi radiyallahu anhu ba mu jàngee ci Malick bay ñibbi Malick ne ko moo ndax réew ma nga dem am na seytaane mu ne ko waawaaw mu ne ko ndax am na xaj mu ne ko waaw waaw mu ne ko bu xaj dawee bëgg laa matt nag nooy def mu ne ma dóor ko mu ne ko mu delluwaat bëgg matt forcé mu ne ma dóoraat mu ne mu del si matt la nag mu ne ko ah, sëriñ bi loolu day am naa ci jaaxle nag nu may def mu ne ko da ngay daw làqu ca borom mooy tax ba xaj ba du la matt te boromam moom mooy yàlla boo ca làqoo du la man a matt mu ne ko moo tax seytaan itam xaj la soo bañee mu yàq la da làqu ca borom boo ca làqoo du la mën a matt moo tax mu ne on oh, su danaa muslu danaa tàppu yooyu yëpp dana ko firi danaa làqatu danaa sàkku ndimbal billaay ci wàllu yàlla mi ne seytaane ci seytaane mii nga xam ne rajim la ku ci dàq la moom wali si yermande yàlla maanaawu astajiiru bi janaa billaahi mi ne seytaane rajim an yadroni fi diini wa dunyaaya aw yasuduni hama umirtu aw yahutuni ala ma nuxitu fa innahu la yakfi la anta ya rabbal alamin nee na loolu mooy onsu billahi min seytaani rajim téere bi na góor gi ñu ngi fas yéene comme ni nga ko laajee jàng ju tuuti rek barkilu ci ndax temps bi duñu ko may yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne koor gu nekk jibril day ñëw di jàng ak moom alquran di ko def li ñuy wax révisé di ko muraja jàngaat ko di setaat baat yi ñu ci daan tëbëg ñu ci daan yàq yépp loolu mooy sunna ci su koor jotee ci la nit ñi di seetaat téere bi di ko nafaraat di ko seetaat béréb yi nga xam ne dañ ko daan yàq yépp ak barab yi nga xam ne dañ ko daan tëb daawuñu ko jàng seetaat ko bu baax xoolaat ko téere bi nga xam nag moom lañuy gën a topp en firim ci li gën a bari mooy tafsir bu ñuy wax tafsir waadi bu Muhammad Mahmoud al Ajasi ndax tafaasir yi dañoo xaw a bari parce que firikat yi kenn ku ne ak ni ngay firee xolamaa nag yàlla may na leen ñu am ay honneur texe texe ak firi téere bi yépp ba mu jeex ñenn ñi firi ko ci wax ñenn ñi firi ko ci bind ma génne maanaa yu xóot yi ci nekkoon yépp firikat bu nekk nag am na wuute ak sa morom ndax firikat yi dañu am ay wuute firiin ci ay barab am na firikat boo xam ne aw jubal balaaxe bi rek lay top amna na firikat bo xamne takale hatta àttey yi rek lañuy top amna am na bo xamne xam ne rek lañuy top amna am na yo xamne bat yi gëna a jafe la ñuy topp am na ñoo xam bi rek lañuy top amna am na yo xamne itam ni ñu togalé bat yi rek lañuy top ndax lu waral lolu moy ci jamru yu ñëk ya firikat yi dañu amoon ay façon firiyin mi la jàngalé rek nga dégg am na firkat yoo xam ne baati sarañ yi rek la topp am na firkat yoo xam ne ni ñu toggalee baati luxa yi lañuy topp danañ jàngee nii danañ firee nii boo seetee ku mel ni alfaqru raas yi ni mu meloon ci firi alxuraan terewul seeni wax ñoom ñépp ay référence la nga xool ku mel ni saawi yi ñoom ñépp ku ci nekk def nga tafsir bu am solo pour ñu dégg téereb yàlla bii kon nag waxati ci lu bees moom seen Cheikh defe naa dina xaw a jafe xanaa jim rek ah ndax nit ku nekk defe naa yaa mën a wax ñi nga tollool jamono pour ñu dégg la ndax jàngkat yi dañoo bari gëstukat yi itam dañoo bari te lu ñuy jàng yépp li ci gën a am solo mooy téereb yàlla bii muy alquran su ko defee am na loo xam ne ci diggante nit ñi la ñu nu neen xam na ci loo xam ne ay wute la ñu nu neen ci diggante kër yee diggante tarixa yi ak ci doxalin yi su ko defee ñi leeral ko am na ci loo xam ne diggante nit ñi la lu waaye àdduna bi am na ñoo xam ne amul benn at bu ñuy firi lu dul am na ay wute ndax jamono day dox te firikat bi li mu gisoon ndaaw mën naa am gis leneen lu bees ren loo xam ne gisu koo daaw euh, firikat nag mën na gis loo xam ne waxu ko ndaaw lu bees waaye alxuraan firi ko nekk lu bees ndax at mu nekk am na luy xew waaye alxuraan euh, firi ko nekk lu bees mbir la moo xam ne lu yàgg la ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lépp lu leen ci jafe woon firil na leen ko ndax jamono saaba yi lañ ko firi woon ndax bëri lu ko laajoon ci jamono mu firi ko ba tax na ulamaa wu hadis kenn ku nekk boo tëralee nii ku mel ni buxaari yu muslim abo daawod ibnu maaja nasaayi tirmisi ku ci nekk am nga baabu tafsir boo xam ne dangay ngay alxuraan alquran comme ni ko yonent bi daan firee sahaabi yi jël ci moom loolu taabiyoon yi jël ci moom loolu taabiyoo taabiyoon jëm ci moom jël ci moom loolu gannaaw gi gannaaw gi nag am nay olamaa yoo xam ne dañoo far sax yaxal téere bi yépp firi ko ki njëkk def loolu nag mooy al imam halli moo njëkk am jàmbaar ak firi bi yépp firi ko firi baat yi ci nekkoon yépp daal di saraa tuuti nag ci li sore woon bañ man koo dégg saraam bi nag mooy jalaal saraa na ci tuuti rek saraa la boo xam ne bu tuuti la boo xam ne firi baat yi ak yett rek la woon moom la ci jublu woon pour ñu mën a dégg téere bi yàlla bii ndax boo xoolee dafay xaw a mel ni tafsiram boobu da xaw a mel ni message wala ab télégramme rek loolu moo tax gannaaw ga kuñ naan saaw yi ñëwaat sarawaat la jalaale ni andi woon yépp maxali nag faatiyee la firi ba mu jeex loxo yi ci nekk yépp mu firi xaaj suuf ba firi ko ba mu jeex am na ñu ne jeexul yàlla dogal mu faatu am na nag ñu daan toog ak moom bu ma saa di waxtaan xam na te ku ñuy wax su yi moo jël xaaju kooba yépp firi ko moo tax booy xool jalaal dana ci am ay place bu ko suyooti firi nii ca xaaju ba ni nii laa ko firi woon ndax loolu wu seexu ci surtout xaafiri noonu la ko maxalli firi woon waxee woon ci xaafir may doon ñoom ñoo njëkk a alxuraan baat yépp loxo yépp ak baat yi tumarankoon yépp ñoom ñooñu ñoo ko njëkk a léegi nag firikat yépp dañuy jublu ci ñoom comme niñ ko defee di yokk fii di wàññi fii téere la boo xam ne daal bu ñu firi la ba mu sotti kon nag ñiy wax ne ñi ñuy wax ne dañ koo firi defuñ lu dul góorgóorlu firi alxuraan moom képp ku koy defet dañ lay sant rek ne ku góor góorlu nga kon ñoom defuñ lu dul góorlu ca ña firi woon lañ firi woon rek ñu firi ko firee ko noonu bu kenn wax ne diwa nga firi alxuraan fekk firi woon nañ ko bu yàgg loolu moom na ko nit ñi xam firi bi nag lu mënul ñàkk la ndax ku toll ni yàlla bu la bindee bataaxel <laughs> war ngaa xam la ca nekk ndax buñ la ko jàngalu te du saw làkk firiluñ la ko tere yi ci nekk ak ndigal yi doo ko mën a xam kon nag rafetul ku toll ni yàlla bind la bataaxel xamoo la ca nekk càggante la moo tax yàlla ne du baxal yowmal qiyaam kenn koo xam ne danga naan xawma koon ndax loo terewoon a laaj am na ñu fa nekkoon ñu xam te laajoo leen woon. kon nag loolu mooy téere bi xolomaaw yépp nag jaar nañ ci sikki nekku ci na xolomaaw usool nee nañu ay xaaj la xam-xam yi ay xaaj la xam-xamu tawhiid moo ci njëkk moo ci gën xam-xamu tafsir moo ci topp xam-xam xam-xamu xadis moo ci topp xam-xamu fiq topp ci ñoom ñépp nag boo leen boole seen yuqat yi moo tudd tasawuf waaye du benn xam-xam mustaqila ci fiq ak alquran ak xadis ndax ci biiram lañ leen di génnee moo tax déggoon naa seen seex suñ benn magu kilifa gu baax guñ nekkaloon ca daara ji bi jàng mu wax ne wa afdalul xuloomi bil itlaaqi uhibbu rabbana ala ittifaaqi wa baxdahu tafsir lil quran sumal hadis xaalahu daymaani kon ñoom ñépp jubluwoon nañ ca jubluwaay boo xam ne moo tax ku askanoo ca ñooña di jéem a bañ firi alquran wala nga di ko ayibal dangaa déggul ñooña la bind ak la wax wala su yoon da caa nekkul firi alquran nekkul lu bees amrun la mbir la moo xam ne mu mënul ñàkk la ndax ku ñu bind ab leetar xamoo lu ca nekk lu doy waar la lu yéemaane la moo tax buur ne awoosu danaa muslu billaahi ci yàlla ñu firiwaat ko mi ne seytaane ci seytaane mii nga xam ne rajim la ku ñu dàq la walis yërmande yàlla loolu nee nañu balaa ngay jàng dara ci téere na nga ko wax ni mu ñëwee ci sóortu li aaya 98 naka noonu ni mu ñëwee ci sóortu muminin kon loolu ndigal la bu jógee ci suñu borom nee na fi isaa xaratal quran fastahis billahi mi ne seytaani rajim téere bi nag téeméeri saar la ak fukk ak ñeent juboo nañ ci ñaar fukk yëpp ak juróom-ñaar yëpp yëpp yëpp na Madina la wàcc kon ya ca des Makka la wàcc Faatiha nag njëkku cee wàcc waaye moom lañ def ci boppu téere bi imaamul mahali moom lañu ko ndax dañ ko tuddee caabi ji moom Faatiha suratul Faatiha dañ ko tuddee umul kitaab saaru ubbeekaay bi wala aji ubbi ji wala caabi ji tuddee nañ ko fatiha ndax moom la ñu ubbee alquran danañ ko tuddee umul kitaab ndax li mu làmboo ci biir ci ay ndigal ak i tere ak i xabtal ak i santaane xasawa jàlla ak tawhid ak jaamu yàlla ak i ndigal ak i tere ak li mu làmboo ci ñaan loolu moo tax ñu tuddee ko fatiha dañu koy tuddee xeful masaan yi comme li ñu waxoon ci gannaaw juróom-ñaar yi ñaareel ndax fu ne bisimillahi rahmaani rahim teg na ci alhamdulilahi rabbil alamin daal dina rahmaani rahim maliki yow mi diini mu ni iyaaka nahbudu daal dina wa iyaak ihdina siraatal mustaqim mënoon naa ci siraata jooju rek waaye mu ne siraata la si na anamta alayhim xayril maxdoo bi mu ne alayhim loolu mooy safol masaan yi mooy góor gi sëñ bi seex fàttiya lépp ngi ci biir waaye jot gi du ñu ko may pour ñu mën a toj ci biir li ci nekk leer bu temps bi amoon doon nañ mën a firi li ci biir wax li ci xew ci biir saa fàttee doon lépp bu ko defee nag loolu moo tax ñu ne safwal masaan yi am na ñoo xam ne boo gisee ñu ne safwal na yi aayam yépp ndax wax na ne bisimillahi rahmaani rahim ci kanam ne rahmaani rahim fii mu ne iyaaka nahbudu bi iyaaka siraatal mustaqima mu ne siraata ñu ne kon baat yooyu dañoo ko baamu bon anam taalim xayril maxdu alihim wala daalin amin fa tabarkalla bëggoon nañu waxtaan wi sori waaye comme jot bi amul xanaa beneen yoon dañuy fexe rek ñu continuer téere bi dugg ci prime alxuraan bi tuuti li ci war lépp ci li nga xam ne moom lañ ko war a jàngee alors ñu jaar ci incha allah rabbi waaye temps bi moo xaw a xat kon dañ leen di tàggu fii ci beneen yoon incha allah bisimilahi taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allah xeyran waaw sëriñ bi ma bëggoon laaj tuuti rek parce que démb am na gaal gu suux yóbbaale doom ñetti téeméeru africain yu bëggoon ñëw fii ci Europe jaare ko libi loolu ban jàgg nga ci am ah li ñuy njëkk wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun musiba la woo xam ne kenn séentuwu ko woon te kenn bugg koon itam musiba la woo xam ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy tontu bi mooy li njëkk a wax mooy yàlla leen yàlla jéggal te xare leen la hmm. waaye daal mbir la moo xam ne lu jara seetaat la ndax adduna bi léegi dafa tas te itam bëri na lu nit di def ñàkk xam moo ko ci dugal ndax sa morom dina la wax rek kaay yi dem bitim réew boo demee boo defee lii am lii boo defee lii dugal la yéeyee sa nopp ba nga xam ne yow booy dugg ci lu mel noonu sax doo xam foo jëm ñàkk a xam moo ci gën a bari waaye daal maa ngi joxe message di jaale suñu doomi ndey yooyu suñuy doom ak suñuy jarbaat ak sax suñuy mag ndax ñépp a ci nekk ndogal boobu yàlla indi ci seen kaw yàlla leen yàlla jéggal te it yàlla bu mu amati métti nañu lool ñu ngi koy jooytu di ko jaale nag réew yépp nag waaye daal maa ngi joxe message ci ne jamono ji sensé na changement boo xam ne léegi suñuy mbokk yi war nañu xam bu baax ci ne réew àdduna bi yépp a tas crise mu am partout euh, maa ngi ñaan daal xale yi ñu bàyyi xel loolu bañ a amati ñu toog jéem a jàpp ci suñu borom te jéem a yëngatu ci réew ma muy Sénégal muy beneen réew dem ci gaal moom nañ ko arrêté bu ko kenn xelam dajati ndax réew yi boo demoon ba ñëw ba yegg ci fi nga xam ne mooy Paris wala feneen fu mën a doon dag fa mën a jëlee dara boo fayee li nga am ba pare la nga fayoon ci gaal gi sax ba nga am ñaari at doog am kooko wax na du ko gëm waaye réew yi fi mu nekk dara nekkatu fi waaye nag ki xamul moom xamul ay xale lañ waaye maa ngi leen di jox message ci ne nañu jiima toog suñu réew jiima yëngatu ci réew ma jiima muñ ndax réew yi ñu daw jëm dara nekkatu fi dafa am nag ñoo xam ne ñooy nax nit di la defar di wax di la jéem a dugal wala ne boo tukkee ñaari at nga am lii ñaari at nga am lii tukki masoon na baax bu yàgg mais du léegi at yii paase yépp am na ñu nekk ci réew yi fi mu ne ñibbi moo leen të am na ñoo xam ne lu ñu lekk moo leen të am na ñoo xam ne bii avion bu leen delloo fañ jógee woon moo leen të am na ñoo xam ne ñu ngi feebar mënuñoo faju am na ñoo xam ne ci mbedd mi la ñuy fanaan am na ñoo xam ne amuñu dara loo xam ne mën nañ ko def seen yaram dañuy dem sax ba mujj gi sax ñu mujj soppeeku nekk ay dof bëri na ci dëkk bi boo demee ci koñ yi boo demee ci métro yi boo demee ci café yi ñu ngi ci taxawaaloo lu ko waral mooy réew mi dara nekkatu fi loolu nag ñiy jóg bëgg dem nañ xam ne réew mi dara nekkatu fi maa ngi leen di ñaan leen wax ne Europe ak furul Europe yàlla mi moom àdduna bi àdduna bi moo am problème nañu jiima jiima toog ci suñu réew jii ma yëngatu dem ci àll bi jiima bay su ko defee même li nga am mu niiw mu bari nga am jàmm waaye jël lu toll nii deux mille euros wala trois mille wala moo xam montant bi nu mu toll nga fay ko ci dem Italie wala dem France yàlla dogal lii am li xew nii xew te même bu fekkoon xewuloon sax nga ñëw loolu nga fay sax mën nga fi def ñaari at doo ko am ndax da nga ñëw fii am nañu fii ñëw def fi juróomi at juróom benn at duñ am liggéey ku lay jël liggéey ñenn ñi jànguñu ñenn ñi amuñu métier boo xam ne mën nga ne métier bi te même boo amee métier sax fekk nga fi ñoo xam ne am nañ métier te amuñu liggéey réew mi nga jëm si nii bu dee ingénieur nga am na junne ingénieur yu fi nekk bu dee mécanicien nga téeméeri junne mécanicien ngi fi bu dee maçon moo la fi moo tax nga bëgg nga bëgg a ñëw junne maçon ngi fi ma wax leen ne leen réew yi européen réew yi àdduna bi moo am jafe-jafe crise internationale mu am fépp bon nag bu ñu kenn déglooti ku lay puus ci dem bitim réew bu kenn déglooti kenn ci dugg ci gaal bul ko nag bul ko kenn puus nga def ko ndax euh, dugg ci gaal yow ak mbooloo moo xam ne mu nga ngelaw ñëwee fekk leen ci biir mosoo dugg ci géej am na ñoo xam ne tiitaange moo leen di dal ba ñu àndandoo jëm benn côté gaal gi dem yoonam ndax ku mosul dugg ci géej mosoo gis géej te géej dafa am borom parce que man ngeen dugg ci géej nekk mbooloo dem ba ci digg ndox mi mbir moo xam ne da leen di feeñu ngeen ànd tiit yéen ñëpp jëm ci benn boor gaal gi suuf géej dafa am borom maa ngi ñaan ñi koy def ak ñi leen koy defloo nañu dellowaat seen xel yi gannaaw xoolaat seen bopp bu baax réew mi dara nekkatu fi képp koo xam ne pare woon nga pour jóg waaye waaye gis nga li xew wala nga dégg ko delul gannaaw nga tok sa dekk fa nga jima gor gorlu gis nga rew ba fa nekké fasiyene djub fasiyene liggey bëgg am dara yalla dina la jox waaye nga ñëw bitim rew jaay li nga am lepp def ko ci bi nga ñëwé def ci juroomi at la nga jaayoon to ko génné ti giso ko la jox liggey lolu musiba mënu ko passé bon dal man suma wax ci lolu ma ngi jaalé bu baax di ñaan yalla lii baña amati ñaanal yalla sama borom ñi nga xam seeni nit dem nañ ci ñu ngi leen koy jaalé di bokk xaru ñun ñëpp di ko sédo di sante ministre bi ci kaddu yi rafet yi nga dugal nako ci parce que wax deug yalla kenn ñaanul li am waye dal xalé yi ma ngi sakku ci ñi nga xam demaguñu nañu bayyi seen yoon yoyu nañ ko fomm tok tu yëngatu nit kat fu mëna tok di jima yëngatu ci dara suñ borom dana ko dimbali mu am dara lépp loo yëkkati di ko jëmee bitim réew ne pour suma demee lii laay def fekk nga fa junne ñu toog te amuñu dara. Hmm. bon réew mi dara nekkatu fi. nañu bàyyi xel ne Europe ak fu dul Europe crise bi c'est international fépp la. Hmm. ñu dëkk fii ñoo gën a sonn. wallaahi bu ñu xamoon fitna bi nekk Europe ak coono yi fi nekk ak jànkuwante fitna yi fi ne wallaahi kon seen xel du daj mukk di jëm ne dañuy dugg ci gaal dara nekkatu ci réew mi si. Hmm. maa ngi leen ñaan ngeen delluwaat gannaaw dellu seen réew toog. jàpp ci seen liggéey boobu ñaan yàlla nag yëngatu bañ a dugg nag ci lu bon jéem a jub jub mooy tax nit àgg fa mu jëm gis nga oto pour mu àgg fa mu jëm day tege ci kaw tali bi rek bés bu wàccee tali rek ci garab la jëm. Mhm. kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf jërë ngeen jëf merci. jërëjëf sëñ bi li ñu bëggoon nag waxtaan nag jàll ci li nga xam moo xew ci dëkk ba. waaw di actualité maanaam ci wàllu ñi ñu diriger ak yooyu. loolu ñu mën wax ci loolu. waaw wàllu suñu réew euh, li ñuy def mooy ñaanal leen yàlla gannaaw bu ñaanee fii ñu dëkk nii itam. Mm-hmm. ndax réew boo fa nekkee di fa am jàmm itam booy ñaan bu leen ci fàtte. ñaanal suñu réew ñaanal réew mi ñu dëkk itam waaye daal mm-hmm. borom réew ma nga xam ne moo yëlifee mm-hmm. ñu ngi koy doolee sant ci nii ñu gis muy doxalee mooy noppi wàññi wax yu baree baree bare nga sëgg mu jàll ndax itam wolof njaay ne ku boot bu xaj baaw la. boo yoree réew moom lu ne da nga ko dégg waaye daal man li ma ci dolli rek ci li ma koy ñaan xam naa du ma ne dinaa ko digal parce que euh, dinaa wax daal li ma war a wax parce que ci réew ma laa bokk gis nga yi mu jot a defagum nii bu mu ci dellu gannaaw ci wàllu am ñu mu teg ci yoon teg leen ci dëgg gis nga réew boo bëggee mu dem ci kanam mm. da nga yemale ñëpp te mu ngi ci nag mm. te itam am na yu bari yu mu tere woon bu ko kenn di jima nax jey senegal nak man nga dem di def lu bax ba bo moy tul da danay le pousse ba tok nga fatte sax fa nga jëmoon parce que amna yu bari yo xamne alhamdullilah nako ba jam bëgg am bu mu delu gëna mukk ci lool ni mu commencé di doxal na ci continuer ndax itam fitnal nit bayyi nit muy def lu ko neex di fitnal nit ñi du diina du yalla top sa bakkan la baare mbedd nek ci buntu kër jambour te yow benn yoon mayu la ko lu la neex nga def lu la neex nga wax bu la neex nga woote mbooloo ñu wër la ngay wax lu la neex yooyu mu ngi wàññeeku te yi mu tere woon ba ñëpp xam ne tere na ko na fexe ba loolu continuer mu bàyyi xel bu baax ne yoon wi mu aw woowu la te nag parti de yi parti la waaye yàlla joxe nguur ndax parti yi bari nañu fa lool waaye kii tànn nag mooy xool ki ko doy mu tànn ko mooy kun fa yàkkoon mooy jalla jalaal hmm. moo la jo nguur gi ndax am na ñeneen ñoo xam ne am nañ parti comme yow waaye ba ñuy xëccoo jotuñ ci yow mi ko yàlla tànn jox la ko nag dafa am lu mu wóolu ci yow mooy njub ah yi nga tere continuer tere ko parce que ci yoonu siraatal mustaqim nga nekk te siraatal mustaqim ma nag siraatal si na anam taali moo ci topp bon bu mu nangu mukk teree ba yàgg nga dem a dem ba yàgg la fa nekkoon delluwaat fa dellusiwaat na ci bàyyi xel hmm. na continuer kay di dindi di dindi parce réew fokk ñëpp ànd jima jup jub jéem a tege ci dëgg ñu yemale ñëpp it nag ku jàdd yoon comme ni ñu ko nar a doxalee ku jàdd yoon ñu teg ci yoon kenn amul sañ-sañ di def lu neex di wax la neex kenn sañ-sañ du diine du lislaam du yar bon nag nii muy doxalee bu njëkk bi mooy waxam bariwul ñaareel ba mooy mu ngi wër réew ma fu ci nekk mu ngi xool la fa xew dina meeku nit ñi loolu ñu ngi ko ciy sant di ko ci ñaanal yàlla yàlla may ko kattan ak ñi ak na bàyyi xel bu baax a baax ci xam ne mu ngi teg mbir mi ci yoon nit ñaa ngi commencé di gis lu baax ñu ngi commencé kontaan bu ñu dem ba ci kanam nag ñi nga xam ne nee na tere woon lu baree baree bare ñu delluwaat fañ buum nga nekkoon booy booy ba ñu dellowaat ko fa bu mu nangu loolu mukk li bonoon liñ fi tere lépp na continuer di ko tere ba faw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.